nag màggal gi agsi ren nag yàlla dafa def màggal Tuubaa bi ñu ko tàmbalee seen bi dénk ñu ko fañ ko tàmbalee ñëpp xam ne mooy conférence yi ci daan def ak colloque yeeg yi par ñetti at lañ ko def nañ ko daaw jël kon day mel ne déwén incha allah ci lañ ko war a defaat ci ni ko comité bi ñu ci waxtaanee ba déglu ñu ko nasee.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 doon loo xam ne xam nañ ne xew-xew boo xam ne àdduna sépp ko war a bokk àdduna sépp ñu bëgg nag bu agsee àdduna sépp maase ci yëgaloo bis bii ci la Serigne Touba di sant la yàlla suñ di sant suñu borom te bëgg ñëpp sant la ko ci yàlla loolu nag résultat bi wane na ne liñ ci def ci diiru fukki at yi nangu ndax ca njëlbeen ñoo ko daan xalaat di ko taxawal di yónnee di def ay ndaje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 ren nag muy màggal goo xam ne ñaari xew-xew yu rëy ci am ndax màggal Touba doy na sëkk xew-xew ba ca dolli kuwaate ñu war cee ubbi jàkka yi Masaalikul Jinaan loolu itam doy sëkk ab xew-xew ndax ak Cheikh Mouhamadou Mountakha moo santaane woon wax ne nañ ko tàbbal ci biir waajtaayu màggal Touba ba moo ko waxee itam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 yàlla def tey nag liggéey bi nekk ci sama tool kon nag la sama kilifa nga defoon rek rawat na ma aw ci xalaat aw ma ci dogal aw ci bëgg-bëgg nu mu gën a rafet ak nu mu gën a baaxee lu ma ci xalaat rek ba wala ma jàpp ne nii mu gën a baax naa leen ko wax waaye lépp nga doon ci sama bi ma ko waxee itam ma ne ko ñu daal amul jënd yitte lu weesu li nga bëgg nga am sëriñ Mbacke yi fa itam jaar ko.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 ba def nañ ay ndaje yu bare bare ba fi mu toll nii sori nañu ko loolu nag day xew-xew bu rëy boo xam dafa tabbi ci biir màggal Tuubaa gi ndax loolu itam day ndamul lislaam di ndamul Sëriñ Tuubaa ndax foo xam ne dañ ko fay jaarale dañ ko faa jaaroo ngir sànki ko ak mettital ko ngir bëgg mu tàyyal ci liggéey bi muy liggéey rasulullahi sallallahu alayhi teg ko fa ay metti yu tiis ba sëriñ bi ci biir ay mbindam muy wax ne إذا ذكرت ذلك المبيت وذلك الأمير والثبوت طارا إلى الجهاد بالأرماه نفسي ولكن زب عن الماهي kon bu demee ba addunay dox lu ëpp téeméeri at yu tegal mu dem ba jàkk ji gën ci Ndakaaru bokk ci jàkk ji gën ci Afrique ñu taxawal ko Serigne Touba kon Serigne loolu aw bàkkam waaye ndamama waaye li ñuy wax intisaaram la ndamam la ci biir noonu ñu doon xeex muy jàkka ju rëy yoo xam ne lu jéege jéege ñaar fukki milliards lu ko mat tàbbi na ci biir lépp di alali taal bi suñu Tuubaa loolu itam di ndama ndamaat loo xam ne nii jumaay Tuubaa nekkoon ndamul yoonu muri la itam noonu la demee kon xew-xew boo du xew-xew bu tuuti ci lislaam du xew-xew bu tuuti ci yoonu muri waaye du xew-xew bu tuuti ci biir réew mi incha allahu nag ñoom ci lañ ko tënke xam naa ne bu sëriñ bi di wooteel boppam liggéey ba danañ ci leer leeralaale programme bi na wër a tëdde ndax ñoom ña koy tënk te xëy na jeexagut waaye ci liñ ci jàppagul rek mooy dimanche le 22 septembre ci la sëriñ bi war ci biir loolu nag am na ay conférence yu bari yoo xam ne ñoom waajal nañ ko am na ay table ronde am na ay nadawaat li tàmbalee le de ba le 26 le 27 mooy bis bu àjjuma bi nga xam ne ci lañ yóbbu bis bu set ñoom waajal nañ ci bis yoo xam ne bis ak bis yoo xam ne dañ ci jàng alxuraan ngir sant la Serigne ndax Serigne lépp lu mos a alxuraan dafa jiital am na guddi xasida it ba bis bay agsi am na ci it ay bis boo xam ne ñu ngi ko jagleel. soxna jaaratullahi Mariam Bousso loolu itam jigéen ñi nañ xam ne seen cër ci bis am na ci ñetti fan yoo xam ne itam dañ cee fàttaliku ñi nga xam ne liggéey bi yàlla def na ci seen loxo la tàmbali te ka ci jiitu di Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu ndax ñu bari xamuñ ko waaye plan bi Serigne Saliou Mbacké moo ko defaroon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 ba ca desaat bi fi Cheikh Modou Lamine Bara Mbacke bàyyi ko Cheikh Sidi Moustapha Mbacke ñëw moom ñëpp yàlla suñu doom doon seen leer daal suñu Cheikh Mbacke moom nag mu am taw tawféexi liggéey bi ne tàmbali ci loxoom mooy yebal Cheikh Modou Moustapha ma ànd ak moom mu joxe ndigal mu wax ne ne tàmbali liggéey bi ci 2012 ci lañ ko tàmbali mu doon liggéey bu jafe ndax sëkk ba rek kenn xawutoon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 ba ci lisaatu waa jamiyatu taawun ala taatillahi wa rasulihi ba nekkee France ñoom itam ñu ñëwoon ci Cheikh mu Mountakha mu dellu soit ci li ma waxoon rek ngir waajale ko màgg ni ñoom ñoo am yitte ju rëy ju kawe ngir fas yéenee delloo Sëriñ Tuubaa njëkkal defal Cheikh Ahmadou Bamba euh, semaine culturelle nañ ko defoon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 danañ fa waxtaane nit ñi yaatu dënn gi war a yaatu dënn ci biir njàngaleem Serigne ngir mu war a yaatu ndax boo koy seet njàngaleem Serigne Touba fu mu àgg rek war na ko wér te Serigne moom def na la mu def la ci des nag suñu jàpp si kon nag war nañoo yaatu dënn ba ñi nga xam ne xamul ñu mbirum Serigne ñu fexe ba xetuk sëñ bi xëy na ndax falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqqahu fi diin ba ca des mooy li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ko suñ bi la waxoon ci alxuraan bi ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta kon nit ñi waroo yaatu dëgg am na ci thème boo xam ne ci loolu ñëw bisum ñeenteel bi mi ngi jëm ci kasbul xalaal te mooy fàggule ndew daanaka mooy finance islamique yi ngeen di wax ne waxtaane ak xidma ci biir yoonu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 yërma yërmaane ju am ci ñi dëkk Tuuba rek la te xam ne màggal yi ñëpp xam nañ ne tàmbali ci nawet incha allah buñ demee ca seer bi nga xam naa bokk na ci lañ fa war a gën a waxtaane ndax dëkk bi mbedd yi taay bari na kenn amul foo jaar te màggal mën naa am mu tàbbi ci biir xëy na yàlla rek xam ndax inna laa indahu taw bi kay dee tàmbalee kenn dee jeex suñu borom rek ko xam hmm. kon nag li ñu ci war ci sababu fexe ba nit ñi mën a màggal si jàmm te duñu am gàllankoor duñu am xat-xat duñu am jafe-jafe des na kon loolu itam sëriñ bi ñu ci sant mbokk taal bi di leen ci gërëm ngir xam na ne ba ma ko santaane seen njariñ ak seen yërmaan dëkk tax waaye jëfe nañ ko ba defe ko noo xam ne weesu na mu ko séntu bu njëkk bi itam njàngoo xasida mu ngi ci daa def ndax dañ ko daa ubbee njàngoo alxuraan ci bëccëg bi ci jumaa ji bu guddee li def fanaa ko def njàngum xasida ci jumaa ji loolu itam buñ ci àggee ni ñu ko daa def ni lañ ko def waa Hizbut Tarqiyyah itam liggéey bi ñu daa def ñoom fas nañ ko yéene tàmbali ci bis bu njëkk ci weeru mooy bâche bi ñu def fii ren nag dañ ci am xalaat boole exposition ndax daaw dañ ko doon def dër ba waaye gis ne sori na ma xawoon a tarde ci xalaat nañ ne ma ci waxtaan bi ba tënk dañuy fexe ba njàngum xasida mi ak bâche exposition bi dañ koy boole ci benn jataay ci benn bâche noonu dañ ko fas yéene am na nag seen xaar nañu ñu ngi koy defee waaw ñoom itam fas nañ yéene li ñu bëgg mooy bu safara bi ñu tàmbali liggéey boobu ngir waa dëkk bi ko gën ko mën a jëriñoo ci biir itam waa day raw du waxtaan yi ñu baaxoo defal ci màgg bi ni ko baaxoo defee ndax ñaar la am na ci yoo xam ne mooy yi ñu RSD di ko teg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 loolu bokk na ci liggéey bi ñu njëkk a tàmbali ci safar bi waa kuréel ak Serigne Cheikh Thioro Serigne Cheikh Thioro moom Serigne Mourad Seck